bismillahi wa ala millati rasuli wa manhaji alxadim mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sante buur bi subhanahu wa taala julli ci Mustafa alayhi salaatu wasalaam sant Cheikhul Xadim di yëkkati sunu kàddu ci ndigalu sunu yaakaari tey ëllëg Bara Mbacké Noreyni yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér mu yëkkati loonu ay kàddu kàddu yi nag jëm ci waa réew mi ak waa bitim réew te jiital ci euh, kilifa diine yi Cheikh Mouhamadoul Mountakha al xalifatul am li taifatil muridiya ñaan sunu borom yàggal ko fi dawéral ko ñaanal ko Cheikh Mouhamadoul Bachir xalifatu Cheikh Ibrahima Faati borom Daaru euh, muy sàkku ci waa réew mi yëpp ak ci kilifa diine yëpp ñaan ak ñu jàppale ko ci liggéey bu yees bii nga xam ne da cee soobu te euh, ginnaaw bi ci santee sëñ Touba ba noppi nag mi nga xam ne moo waral lépp président de la république Macky Sall confié ko ko dénk ko ko muy liggéey bu yaatu boo xam ne nag am na ci wet goo xam ni réew mi euh, la concerné am ci wet goo xam ni bitim réew la concerné muy sàkku ñëpp ñu ñaanal ko te jàppale ko ci liggéey boobu ba mu am ci ndax bu ci amee ndam ndamal àdduna yëpp la euh, kon ginnaaw bu tuddee Cheikh Mamadou Mountakha ba noppi Cheikh Mamadou Bachir xalifa Cheikh Ibrahima wax naa ko léegi Serigne Khalid Mbacke moom borom Daaru Mooti Serigne Sidi Mbacke xalifa Cheikh Abdoulaye Lahad Serigne Ahmadou Mbacke xalifa Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ak euh, sëriñ Dame Atta xalifa Cheikh Ibrahima Mbacke sëriñ Aboul Baraka xalifa Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ak njabootu sëriñ Fallou gépp euh, sëriñ Cheikh Salifou Mbacke ak njabootu sëriñ Salifou gépp boo ci limee Cheikh Mamadou Moustapha euh, Salifou sëriñ Cheikh Mbacke xalifa sëriñ Abdoul Khader Mbacke ak sëriñ Basirou Mbacke Abdoul Khader sëriñ Mamor Mbacke xalifa Cheikh Mamadou Moutada Mbacke Euh, sëriñ Mahamadul Habib Mbacke xalifa sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi ak sëriñ Modou Kéemaan Mbacke sëriñ Moustapha Mbacke xalifa Cheikh Mahamadul Lamine Baara Mbacke euh, moom sëriñ Cheikh Matilay euh, sëriñ Ahmadou Mbacke xalifa sëriñ Chouaïbou Mbacke sëriñ Abdoul Ahad Mbacke Chouaïbou sëriñ Fadilou Mbacke Chouaïbou sëriñ Abdoul Abdou Samad Chouaïbou ak njabootu Cheikh Chouaïbou gépp sëriñ Abdourahmane Mbacke xalifa sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Moustapha Mbacke xalifa sëriñ Mbacke Mouhamad sëriñ Abdoul Fatah Mbacke Fadilou sëriñ Abdoul Karim Mbacke Fadilou sëriñ Mourtada Mbacke Fadilou sëriñ Xaadim docteur xalifa Cheikh Mamadou euh, Cheikh Mamadou Awa Balla gépp ak mboolem njaboot gi euh, sëriñ Abdou Mbacke xalifa sëriñ Cheikh Xaadim Mbacke sëriñ Cheikh Astou Faye Mbacke xalifa sëriñ Mahamadul Habib Mbacke ak euh, Euh, Serigne Maam Thierno Mbacke xalifa Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke Daaru Manaan Serigne Atiq Mbacke euh, ibnu Serigne Cheikh Awa Balla Serigne Modou Mahfouz Mbacke ibnu Serigne Cheikh Awa Balla Serigne Mbacke Dabassar xalifa Serigne Abdourahman Serigne Koso Bousso Mbacke Abdourahman Serigne Modou Kara Mbacke xalifa Serigne Abdoul Khoudous Serigne Bachiru Mbacke sëriñ Mokhtar Mbacke xalifa sëriñ Mahmadan Mbacke sëriñ Maam Thierno Mbacke Haydara xalifa sëriñ Haydara Mbacke sëriñ Maam Thierno Mbacke xalifa sëriñ Dame Fati Mbacke sëriñ Haydara Mbacke Dame Fati sëriñ Mountakha Mbacke xalifa sëriñ Cheikh Fati Fall sëriñ Maam Thierno Mbacke xalifa sëriñ Mbacke Anta sëriñ Maam Thierno Mbacke xalifa sëriñ Miqdaan Mbacke sëriñ Amdi Fall Modou Mbenda xalifa Cheikh Ibra Lamp ak mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall gi boo ci tuddee Serigne Cheikh Ndigal Fall mu matale euh, Serigne Abo Mbacke Darou Salaam Serigne Sidi Mbacke Darou Salaam Ibra Ndar Serigne Babacar Mbacke mu kabaro Darou Salaam Serigne Cheikh euh, Anta Mbacke Modou Rokhaya Serigne Cheikh xalifa Serigne Mbacke Madina Serigne Aliou Mbacke euh, Serigne Cheikh Aliou Mbacke Serigne Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma Serigne Moustapha Mbacke Gaynde Fatma Serigne Fadilou Mbacke Bassirou euh, Khadimu Rasoul Serigne Fallou moom Serigne Bassirou Serigne Ishaq Mbacke Bassirou Serigne Bassirou Mbacke Khadim Hawaba euh, Serigne Khadim Mbacke Hamzatou euh, moom borom Daaru Mawti di xalifaam Serigne Mamour Massamba xalifa Serigne Massamba Mbacke Serigne Moulay Mbacke xalifa Serigne Balla Thioro ak Serigne Cheikh Abi Mbacke sëriñ Khalid Lo xalifoom sëriñ Dame Abdourahmane Lo soxna May Mbacke Galas sëriñ soxna soxna Bali Muntaxa soxna Waalo Mbacke moom sëriñ Saalihu soxna Moomi Saalihu soxna Moomi Mbacke Abdoulahi borom dër bi soxna euh, Kunta Mbacke Fadilu Cerno euh, Basir Taal euh, xalifatu xalifatu Chamar Fouti Taal Cerno Madani Taal Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass di ko sàkku it ci euh, xalifatu Seydil Hadji Malick te mooy Serigne Babacar Sy Mansour ak euh, Serigne Moustapha Sy Moustarchidine mi nga xam ne day wëllëram di lépp ci moom euh, Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz Serigne Ahmed xalifa Niass di wëllëri Serigne bi Serigne Maodo Sy Dabakh Serigne Mokhtar Serigne Mahmoudou Mokhtar Laay di xalifa Laayeen yëpp Euh, alxaaji maam bu Mouhamad Kunta xalifa Njaasaan euh, bàyyi sëriñ Xasan Seck Canaba sëriñ Mbakki yu fay Dakar représentant xalifa général de Mouride euh, sëriñ Salihu Touré Thiès sëriñ Xaadim Lo Gaydel sëriñ Gànna Mesere Maxtaar buñ ko tuddee rek jàngkat yeeg waxtaankat yeeg ñëpp dañuy dugg ci biir moom tam mi koy ciy tàllal loxo ci liggéey bi bu baax ak waa kër sëriñ Daaru Xasan Ndiaye ñoom ñëpp rek bàyyiwul kenn ak waa kër sëriñ Marouba Gueye waa kër sëriñ Aïssa Dieng waa kër sëriñ Aliou Diouf waa kër sëriñ Manoumbe Cheikh Coro Mbacke waa kër sëriñ Afia Lakram mi xamante ni diggam ak sëriñ moom ñëpp xam nañ ko ak waa kër Mamor Diarra Mbacke gépp waa kër sëriñ Mor Doj waa kër sëriñ Moussa waa kër sëriñ Bay Jaxate waa kër sëriñ Modou ak mboole seen bàyyiwul kenn bàyyiwul benn kilifa ndax liggéey bii nga xam ne moom la ko président euh, dénk day liggéey bu yaatoo yaatu muy ambassadeur international pour la paix nga xam ni da ci liggéey lislaam ji di ci liggéeyal àdduna mu njariñ loo xam ne ñëpp ko mën a jariñoo ko mi ngi ciy sàkku seen ñaan di ci sàkku ngeen jàppale ko ci itam ndax mu am ci ndam di leen